yar bi nga xam ne moo jëkk ci moom ba ba mu tuubagul yar boobu ñëwaat dolli ci jikkoom mu nekk ko yaru nekk ko am respect ci nit du la nuyu mukk te sukkul man sama digganteeg moom dañu ñëw ci législature bi rek ñu daje séminaire euh, ca sali mu ni ma dama la sopp wan ma ni ma ba ma nekkee ministre ba léegi mu ngi may suivre ñu xaritoo ba semaine dernière taxaw na ci rangée bi tegu fi may toog sukk nuyu ma fekk gëjoon naa ko gis sax man lu rek laa ko daan wooyee lulu euh, comme ni ko ñëpp di wooyee mais man lu laa ko daan wax euh, ñàkk nañ tey ñàkk nañ jigéen ju baax ñàkk nañ jigéen ju am teggin ñàkk nañ jigéen joo xam ni véritablement marqué na assemblée mi